beneen chose mooy le tourisme un tourisme pour la deuxième et la troisième génération suñu doom yi ak suñu sët yi bu ñuy ñëw fii nga xam ne xamuñu dara ils sont nés là-bas xamuñu mm-hmm. dara mais il faut ñu développer ci ñoom mm-hmm. benn amour pour le Sénégal mais boo leen ñëwee andi leen fii mm-hmm. di leen di yóbbu xaw ma ay si pla xaw ma lan ay yoo xam ne ñu ngi fële ah. même même kii yi nekk ah. fële fa la ñuy yóbbu ay tacos au lieu nga yóbbu leen ci village yi mu am benn circuit benn mais wax na ko fii le tourisme il a écrit sur ça mais le tourisme ñu inciter su ñu ñu aimer le Sénégal mais après ñooñu seen investissement mais c'est extraordinaire. Mmh. nee la regardez le cadre de du Ghana c'est le bel exemple. Mmh. da ngay gis des noirs américains maintenant yuy jógee. mais la preuve di dem di changer national mais xoolal la preuve la preuve la euh, famille Bob Marley. mais bi ñu waree ñibbisi Afrique Ghana la ñu dem. exactement voilà loolu déjà rek exemple tout à fait oui. donc ñu ngi jël exemple bu baax a baax tey. ay Samuel Jackson. exactement eh, eh, eh, mais ya nga am na sax ñu ko def benn ay travaux universitaires am na benn benn xarit euh, Lisa Aubrey. Mm-hmm. la nekk. Mm-hmm. la tudd mais tey dafa ko et puis soutenu avec des organismes internationaux plus xam nga États-Unis da ngeen euh, vous êtes organisé en lobby. Oui. donc le le Black Caucus. Black Caucus dañoo dañoo jàppale Lisa Aubrey. mais chaque année day indi ay ay américains. donc autour de Bimbia Bimbia benn village la parce que am na benn kii maa yore seen communication Bimbia ñu dem Bimbia au Cameroun pour ñu xool back to roots lañ ko tuddee. programme mais mais dañuy ñëw avec mm-hmm. ADN. Mm-hmm. ñu xam maamam fu mu jógee. Mm-hmm. diggante Nigéria Cameroun ak Ghana. en a jox. lan nga mën cest mu ngi changé est ñëw ville euh, ci ñëw ci koñ bi. jóge États-Unis mais matin tey waa koñ bi yëpp ay ñëw. ñëw exactement ngay joxe sëriñ. ngay joxe sëriñ. exactement am ngay may chemise léegi leneen luy découragé lu doon découragé defe naa yi nekk extérieur mooy da ngay nekk foofu investir jox kenn wala jox sa mbokk wala genre yooyu yow tu tu viens tu tu te rends li nga doon investir yëpp au Sénégal fekk na lekk nañ ko. oui mais Dóor Marte non Sénégal moom nga nekk fii loolu moo jikko sénégalais. mu ngi wax ay américains yoo xam ne ils sont d'origine sénégalaise et autres dañu ñëw nañ fi moi j'ai vu des gens qui sont venus ici. ñun hmm. leen fi indi. ñoo leen ndax ñoo jaar seen kaw ba ils sont dégoûtés. exactement ils sont dégoûtés te ñoo dañ ne woon dañuy ñibbisi dañuy ñëw pour pour ressourcer wu. pour xam fan lañ bokk et tout.